19 heures euh, ak ay simili yu teg di euh, du leen baalu ci yéexte gi nga xamante ni indépendant de notre volonté nu ñu koy waxee euh, saa su heure bi jotee soir d'info ci pàcc bu njëkk bi ñu war a dalal Mamadou Mbaye Tamba moom mooy coordonnateur G20 tey gis ngeen ne g dañoo paralysé yenn ci école yi ngir ñaxtu ci liberté individuelle yu ne vraiment dañu ko salfaañee ci réew mi dinañ ci dikkaat ndax dañoo jàpp kenn si ñoom di dàmbo ci xibaar duñu ñu mën di jot. mooy ne bàyyi nañ ko mu ñibbi këram dinañ wax itam ci Covid 19 bi fu mu toll ci biir lekkool yi mi ngi fay lëmbe euh, naka noonu li nga xamante ni moom mooy vaccin yi ak euh, yeneen ak yeneen ak le coordinateur du di 20 du mbay Mbaye Tamba léegi léegi dañuy dalal ki nga xamante ni mooy honorable euh, député Cheikh Abdou Bara Dolly Bara Mbacké maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baara Doli la wala Baara Mbacke. waaw euh, Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli sëñ Baara Doli mooy suñu papa mais Cheikh Abdou Mbacke la ñu tudd. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu baax di am mbégte ci jàkkaarloo ak yow di nuyu sama xarit euh, Pape. Pape Djibril yow yaay euh, vice président commission de lois bu assemblée nationale. du boo ko Gis Gis ca Mbacké. oui man maay vice président commission de loi bu assemblée nationale. nekk coordonnateur Bokk Gis Gis département de Mbacké nekk secrétariat national. nekk mm-hmm. membre comité directeur. waaw waaye léegi nag euh, ñoo pare ngeen seen liggéey plénière bi yëkkati na immunité parlementaire bu Ousmane Sonko euh, ñi ngi doon xaar tey jii ñu convoqué ko waaye nee ñu assemblée nationale moo ko bloqué. waaw loolu nga wax noonu la demee rek ku ne xam na fan yii yëpp ñu ngi woon ci euh, mbirum Ousmane Sonko ba léegi nii sax jeexagul. amagul. ndax assemblée nationale ku ne xam na ni siis bi moom moo ko yónnee woon lettre pour ñu dindi mbalaanu kiiraay Ousmane Sonko. bi nga xamante ni yónnee na ko li li ko règlement intérieur assemblée nationale waxee ci article cinquante bi ni fukki membre la ak ñi benn. Mm. fukki membre yi benn matoon na. Euh, tàmbaloon na liggéey bi dem ba si biir am na ñaar ñu manqué léegi loolu lépp après xam naa dañ si dugg mhm. après bi ñu manqué ni ko xamante noonu la ko règlement intérieur bi waxee encore ci article 40 bi waroon nañ ko remplacer remplacer wuñ leen ñoom ñu continuer seen liggéey ba kar ñu koy jébal plénière mhm. ñu ko jébale plénière tamit ku ne gis na situation bi am plénière ba nga xamante ni tey am na si loo xam ne violent ko mu règlement intérieur Assemblée nationale nekk véhicule dafay nekk loo xamante ni bureau bi ñoom ñoo war a daje te loolu jot am. kan moo décidé huis clos bi euh, euh, bon peut-être que ñoom ñoo ko décidé woon ndax bi nga xamante ni ñu ngi def wot bitse bi defoon na ni huis bi ci wot bitse bi mais huis bi comme jeexoon na euh, loolu foofu la yemoon mais ñoom dañoo continuer ndax dafa amoon ñaar yoo xam ne ko defoon benn bi dañu woon léegi nañu def huis pour que après wàññi député yi nga xamante ni boo xoolee loi de finance yi 40 personnes ñoo doon ñëw mhm. mais bii nii 130 ñoo fa nekkoon kon xam nga déjà loolu respecté wun monsieur Barre yi nga xam moom lañ député yëpp ñëw leen ndax bu bu ngeen yëkkatee ñu wax ni nombre bi bare bari wote nan ngir ko jéem ko gonfale loolu lii moo leen gënoon a ñor si vote bitsi bi loolu moo tax 98 yoo xamante ni nekkoon nañ fa wote te des am na ñeneen ñoo xam dañoo wote maam dañoo gënoon bi ñu waxee pare sa jot ñu woon a fekki wote bi bi nga xamante ni wote ko ñun bi ñuy wote ku ne xam na ni bi ñu defee li nga xam mooy la yoon may ci article 71 74 bi règlement intérieur assemblée nationale mooy euh, li nga xamante ni mooy question préalable suma sama benn collègue euh, Moustapha Guirassy moo ko yëkkati woon ndax loolu yëpp dañ see waxtaan na xamoon na ni du ñu am chance comme ni ko règlement bi tënkee mm-hmm. pour que ñu bari wax mais chaque jour que rek bu fekkente ni am na foo xam ne tënk nañ la fa am na foo xam ne mën nga faa jaar pour li nga bëgg nga am ko mm-hmm. ku ne xam ne yaa ngi woon dégg ba mu naan la président il faut ñu ndaw si sax li nga xam moom la tudd dëgg-dëgg mm-hmm. bind ñu ko si biir rapport bi mu ni fi amul kenn koo xamante ni dana fi nekk di corriger ay fautes yooyu ah, bind ah, ñoom ñoo ko bind mais turu Adji sax xamuñu ko xamuñu ko bu baax nin bind <laughs> nin bind bokkul ak li ne si carte d'identité am loolu lépp mu di yoo a waar la procédure bi ci commencement bi ba ci fin bi mu am ay jafe-jafe euh, léegi nag euh, wote nañ ko mm-hmm. bon bi ñu ko wotee ba pare nag euh, ku ne xam ne dafa am loo xamante ni ndax du procédure loi bu doon mm-hmm. procédure loi tey mm-hmm. kon li xam moom la ko yoon maye ci règlement intérieur am nga sañ-sañu nga dem attaque ko fi nga xamante ni mooy euh, cour suprême wala conseil constitutionnel mais lii dafa nekk loo xamante ni euh, acte administration léegi nag li nga xamante ni comme assemblée dafa délivré bu délivré ñun li ñu man mooy attaque ko conseil constitutionnel léegi nag loolu pour nga attaque ko dafa am ay nombre de signature ak tali boo xam moom la lay may am na sama xarit boo xamante ni la Moustapha Guirassy euh, comme honorable député mi ngi ci liggéey incha allah demee daan déposé li nga xamante ni mooy attaque bi mu ko war a attaqué si conseil constitutionnel ndax may nañu ba mercredi gën gaa néew dana fukki député ak juróom-ñaar pour mën ko attaqué. Mhm. voilà lu tax ngeen bëgg attaqué. waaw xam nga ñu bëgg attaqué mooy benn ku ne xam na ni tey euh, commission ad bi ni nga xamante ni tey noonu la ko yoon waxee bu fekkente ni da ngaa démissionné dañ la war a remplacer ndax article 40 bi dafa leeral biir bi. Mhm. article 40 bi boo ko liiree ci ko ci règlement intérieur Assemblée nationale daf lay leeral ni la tey commission bi am na noo xamante noonu la ko tëggee loo xamante ni ñun bu fekkente ni am na. tey ji yoon may ñu ni bu fekkente ni da ngaa bokk ci commission boo démissionné dañoo war a tàmbaliwaat liggéey bi comme déposant la démission ñu continuer waat jëlaat ñeneen ñoo xam dañ leen remplacer ñoo ñu war remplacer nag dañuy laaj ki nga xamante mooy président groupe bi wala ci groupe bi nga xamante ci lu ñu bokk ndax ku ne gis na ni am na si tey jii ay commission yoo xam ay ni démission nañ si mais dañu leen a remplacer pour ñu mën a continuer seen liggéey te boo jëlee chapitre numéro 10 ci règlement intérieur assemblée bi fa lañ tënk commission yëpp muy euh, nga xamante ni dañoo nekk permanent muy yu bari yi ku ne xam na ni foofu la mu wax mooy kenn ku nekk ci commission yooyu am nga sañ-sañu déglu ki nga xamante ni tey moom la mbir mi concerne ak ñeneen ñi nekk ci biir mais ñoom dañoo bëgg rek sukkandiku ci 52 wane ni mel na Ousmane Sonko kese lañu war a déglu waruñoo déglu. ñeneen ñi nga xamante ni moo nekk ci est-ce que tey est-ce que dañu war dañu est que tey ngir justice mën a def liggéeyam jaarale ko xëy na ci gendarmerie. li ma bëgg a wax mooy pour Ousmane Sonko tey jii ñu mën a jëfandikoo doole ngir jëli ko mooy euh, mandat d'amener. Mm-hmm. est-ce que loolu pour mu mën a am. faw ñu xaar ba ngeen épuiser voie de recours yëpp ba pare ngir loolu mën a nekk. waaw loolu il faut mu am xam nga léegi bu fekkente ni rek dugal nga ma am recours. Mm-hmm. maanaam li nga xam mooy loi bi wala li nga xam mooy délibération assemblée mm. dafay nekk istantaay. action bi dañ koy arrêté. action bi dañ koy arrêté. Mm, mm, fi ñu toll nii des fois ñu dugal recours bi. Ousmane Sonko ba tey kenn dindeegul mbalaan ñu kenn ndax valable gul. ndax mi ngi si yoon. bu nee ba nga xamante ne délai bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel mooy un mois bu demee ba ëpp si nag su boobaa. après dañuy xam ne bu fekk mu jox ñu dëgg wala moom mu bañ ñoo jox dëgg su boobaa li nga xamante ne mooy délivré bi nga xamante ensemble délivré na ko. dafay daal di mais seen recours bi ñaata ñaata temps la à partir de vendredi ba léegi. à mercredi. ba mercredi lay yem waaw mercredi lay yem. bu ngeen euh, déposé wul mercredi nul na. nul na waaw c'est terminé mm-hmm. en tout cas Ousmane Sonko nee na moom reconnaître wul sax dara. ba tax na du waaw xam nga loolu ku nekk am nga si sañ-sañ ndax bu ni tey yow da nga yore règlement intérieur nga nekk député am loo xamante ni moom la yoon may dèjà ñu njëkk ko violé ci li nga xamante ni mooy convocation bi nga xamante ni moom la convoqué bu gendarmerie mhm. tey ay nit la a déglu da nga woon yow am nga sañ-sañu ak yéen a ñëw déglu ki nga xam moo lay défendre waroon na may ñëw déglu jaarle woon ko noonu ndax bi ay nit démissionné rek automatiquement ñoom ñu continuer dañ ko waroon remplir ndax bu fekkoon tey ñu nekk si commission bi yëpp démission na léegi nan la commission bi liggéeyee kon am na yoo xamante naa ni wax ko sax fooyee askan ngi fi ay député lan député yi ça fait yoon dafa wax ni commission ad hoc bi maanaam du nekk impair fukk ak benn lay doom doo gis mukk maanaam mu nekk fukk ak ñaar wala mu nekk fukk kese yam si dafa war a nekk fukk ak benn loolu règlement intérieur ensemble wax fukk ak benn yooyu noonu juróom-ñett yi ñooy jóge si majorité ñaar yi mooy jóge si groupe parlementaire benn opposition benn bi moo jóge si non inscrit noonu la ko bindee léegi bu fekkente ne am na ñaar ñoo xam dañoo dimu dimu sane kenn ki nekk si régal euh, si groupe parlementaire euh, liberté démocratie kenn ki nekk si non inscrit li nga xamante ni mooy yoon la mu waxoon mooy il faut que ñu remplace leen continuer seen liggéey mais loolu comme defuñu ko nag moom dafay jàpp ni commission bi dafa nekk en validité boo xamante ni matul kon li mu délivré du valable loolu moo tax mu am sañ-sañ wax loolu léegi nag ñu ko am nga noo ko gisee Euh, démb dafa mel ni yow seeti woon nga soxna yi nga xam ne Pastef la ñu bokk. ñu teg leen loxo ci commissariat bu jëppal noo leen fa gis. waaw naa leen bi ma demee gis naa waxtaan na ma ñoom muy soxna yu gëm yàlla. noo leen fekkee euh, man li ma leen fekkee nag wax dëgg yàlla métti na ndax Sénégal fi ñu toll man jàppoon naa ni euh, du ñu toroxal jigéen mais démb bi ma demee fi ma leen fekk ñu tër leen si karo yi ci suuf. lu mat ñaar fukk presque jigéen ñi. kon ba ñu fa nekkee ba tey ci karo yi lañ nekk ci ay karo la nekk fa lañ tëdd lu mat ñaar fukk ñu day leen foofu noonu ci benn kaaf bu ndaw motu sax 2 mètres yaakaar naa loolu humiliation la. loolu nag lu ñaaw la ci réew mi kon mm. jàpp naa ne jigéen ñi murto murtuwuñ loolu. Mm. ndax jigéen ku ne xam na ne dafa am am cër boo xam ne ko war a jox mais bu fekkente ni da nga jël tey jii mbooloo mu toll noonu day leen ci benn bërëb te ñu da ngay xeexu mbas ba pare maanaam joxoo leen maanaam yenn jumtukaay ak yoo xamante danga si man sax suturlawu ñoo xamante bàyyi nañ seen i doom bàyyi nañ seeni i jëkkër nga tër leen si karo mm-hmm. yaakaar naa loolu jëfin wu ñaaw lu waxaan li mu doon wax naan tur maanaam maanaam torture mi nga am ci euh, police ak sandama yi police man teg naa sama bët démb gis naa ne ña fa nekk dañ leen a torture ndax fi ñu leen tëral waruñu ñu ren nit ku yiw. lan lañ la wax ne la sax lañ leen di tey waaw waaw xam nga xam nga li leen. li wax ne ñoom la leen ñun wax ne ñoom la leen téye bon nit ku nekk am nga sañ-sañu hmm. wax sa xalaat ndax aussi il faut ñu xam ne nit ñi dañoo am ay liberté yoo xam constitution bi moo ñu ko may gis nga constitution bi boo gisee sax maanaam ñu waxoon ni bu ñu sensé loi 69 bi lu mel ne la si ndax man jàppoon naa ni nit ku nekk dafa am liberté si constitution boo xamante ni boo jëlee article 2 si constitution bi daf la ko jox kon il faut que ñu respecter yooyu noonu bu fekkee jigéen lan ànd ni ñoom seet seen leader kii ndax li ñu ko def neexul mais bàyyi la ñu dox ndànk dem seet leen que jigéen boo xamante yorul xeer amul benn kii bu fi def fitna nga ne ko eh fekk mu toog laal luwaat nga xëcc ko di ko dugal mm. ci biir euh, oto bi waxuma la leen nga dem maanaam déglu leen si ay karo xanaa ñu amuñu ay jabar mais euh, amuñu ay jëkkër mm-hmm. mais jàpp naa ne ba fekkente ñoom seen jëkkër ak ñi leen jàpp ñu amuñu ay jabar tey Macky Sall tey ji jabaram première dame ku ko doon def est-ce dana ko neex ñoom dañu am ay doom yoo xamante ne dañoo nekk responsable dëkk bi ah, ba pare ki nga xam ne moo leen jiit na dafa feebar mais ah man vraiment koo xamante ni tey dama ko yërëm man jàpp naa ni Sénégal lu mel nii man jàpp naa en tant que député bu ma tegutoon sama bët si lii gëm naa ni lii du am Sénégal euh, dama gis naa ni mhm. dañ leen a toroxal dañ leen a ngir lan loo xamante ni intérêt Macky Sall la intérêt ministre ndax oh, ministre bi si boppam moom moo joxe ndigal pour ñu téye leen si si joxe woon ndigal oui ministre de l'intérieur moo joxe ndigal pour ñu téye leen ministre de l'intérieur mooy kilifaam Macky Sall mm. aggul woon si sis mm-hmm. ministre de l'intérieur moo joxe ndigal ni leen foofu bu fa kenn mais man comme député laa am naa sañ-sañ fu ma neex laay dugg tukku mën na loo téye ku nekk dinaa ko jëflante yow man ma dem dugg waxtaan ak ñoom. voilà soxna yooyu soxna yooyu sax dañoo bénéficier aux dernières nouvelles retour de parquet maanaam dañu waroon jàkkaarloo. mais dañ a war a bàyyi ñu dem ndax gis nga deux fois deux ministres yi nga xam moom def ndax maa ngi saluer bàyyi gën bàyyi. Dame mais Dame Mbodj bu fekkente ne dañoo wax ni yoon moom moo interdit pour mu def manifestation ku ne xam na ne tey jii soxna yi defuñu manifestation mais jàngalekat yi jóg ak ñi nga xam ñoo élèves yi si mbedd yi mais xam na ni ñoom bu ñu ko bàyyiwul dañuy grève def ma def année blanche ñoom xam nañ loolu Guy Marius Sagna ko voilà Guy ñëpp ñu jàpp nañ si loo xamante kenn xamul lu mu doon réew mi nag fa nga xamante ni fa lañ seen bopp seen destin pour ëllëg ndax aussi naka lañ koy jëlee trop c'est trop mais naka lañ koy jëlee léegi ku jóg ñu jàpp mais nan jàpp ñëpp mais Macky Sall na ubbi jam ñaaju stade bi na fa dugal askan wi mais lan la ñuy daw ana ñi nga xamante ni tey ñoo doon xeex pour démocratie am ci réew mi mais lu nekk dañ nañ ko mais kon ay xoqatal ay xoqatal yi yëpp war naa mën ku nekk am nga sañ-sañ Macky Sall na gouverneur te bàyyi nit ñi tranquille comme que réew mi naqar na métti na na leen bàyyi ci seen méttit ak seen sago mais bu mu leen tegal nag beneen coono boo xamante ni am na aussi beneen beneen euh, mbir boo xamante ni euh, Binta dinañ ko waxtaanee mooy taxawaayu assemblée nationale mm. yaakaar naa ne ci histoire politique gu Sénégal depuis 2012 li ñu fi dindi ci mbalaanu kiiraay battre na record ci régime yi nga xamante ni ñoo fi jàll ci ay durée yu gàtt. waaw ah, juróom-benn la. waaw ah. juróom-benn xam nga loolu moo lay wan ni la assemblée nationale dafa nekk maanaam benn bànqaas boo xamante ni politique lay dox Macky Sall moo koy sant muy def ndax boo xoolee ñu dindi woon mbalaanu kiiraayu député yi fi jaaroon. Hmm. te ñoo nekk asara yu nekk opposition di wax ku si mel ni Moustapha Diakhaté balaa ñu créé Ablaye Balde man dindi woon tey Ablaye Balde mi ngi ensemble jiite commission. nekk seen chef ñoom te ñu ko dindi woon mhm. ah, ki nga xam moo nekkoon maanaam Omar Sall dindi balaa ñu créé tey mhm. am na ñoom ñoo koy def sax. ànd ñu seen sox gis nga bi ñu wootee projet loi kii ba pare euh, dindi balaa ñu créé dafa am ay député APR yu ma seet si mu ñun dañoo am naqar suñu xol tey neexul mën na ko la tax mu lii ñu ñu def loo dañoo xam ni bu ñu ko deful dañuy suñu politique dafay yem waaye kon dañ leen ko defloo dañ leen ko defloo. Mm-hmm. may leen ah kenn ku nekk sa da ngay da ngay da ngay da ngay xalaat sa diggante ak yàlla xam ngeen ni lii li maam Abdou Aziz Dabakh doon wax mooy réew bu tollee fii kenn ku nekk yow yaa jël sa responsable te yéen mënoon ngeen a sowee assemblée pour wan ni lii nga xam moom la ñu def loo amuñu ay preuve yu wér ñu <laughs> ngeen a maanaam Macky Sall mi nga xamante ni tey jii moo nekk si bopp réew mi nar indi réew mi ay coono mën ngeen a sowee aussi tamit cadre na a a nekk si candidat élection ko mën a def mais ku ne xam ne ne assemblée bànqaas la boo xamante ni fu Macky Sall joxe foofu la ñuy def léegi dañoo bëggoon pacifier espace public beeg espace politique bi ba tijji dialogue national ndax mbir yi ñu nekk di dund jamono bi nga xamante ni dafa sax mel ni dafa dajalewaat opposition ndax du bloquer définitivement le dialogue national. Ah, xam nga dialogue national moom duñ ko gëmul ñoom noonu dañ ko defoon rek uniquement pour dàq élection yi pour mm-hmm. la.

alors mais est-ce que honorable euh, liberté individuelle yi ngeen di wax dañ ko salfaañe est-ce que aussi euh, liberté individuelle ak euh, vraiment liberté d'expression mooy wax lu la neex di def ay menaces vraiment loolu tamit. Euh, xam nga dafa am yoo xamante ni kenn du ko d'accord mooy def menace ak yàq dara wala yooyu def xuruñ si. Mm. mais kenn ku am nga sañ-sañ wax Macky Sall mu waxoon fii. est-ce ngeen a génn bàndu Macky Sall li mu waxoon. Moustapha Niasse li mu est-ce que bu yàqoon weer yooyu kan moo koy fay encore est-ce que kon man mi dinaa fa dugg ba mën a wax dafa am loo xamante il faut nit ñi waxante dëgg gis nga li nga doon bañ démb boo ko nangoo tey am na lu tax li nga nangu tey boo ko bañee démb am na lu tax mm. mooy il faut que Sénégal ñu xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu respecter institution yi institution yi nga respecter sa bopp tant que respecter sa kenn du la mën respecter Et, aussi que la première est-ce que tey jii tamit taxawaayu opposition ci biir assemblée nationale ci fu ñu mën di bokk est-ce que tamit warul ñu xoolaat ñoom ci seen biir ndaxte dañuy gis ne jamono bu nekk problème day am entre les non inscrits ak opposition bi ñii fare fii ñii fare fale ba nga xamante ni dafay mel ni sax ki contrat de confiance bi waroon am ci seen biir. Mm. dafay mujj. Euh, xam nga assemblée nationale opposition bi amuñu amuñu amuñu. parce que li ma lay wax mooy majorité. Mm. amuñu tamit yenn kii mais kenn ku nekk am nga si liberté ndax ñun fi ñu wuute ak ñu nga xam ñooy pouvoir bi. Mm. kenn ku ne dangay am sañ di wax ñenn dañ leen di wax loo ak def loo. te am na ñoo xam ne dañoo bokk non inscrits yoo xamante ne ñu ngi ci pouvoir bi tey am na ñu bokk tamit suñu groupe ñoo xamante ne ñu ngi wax ak pouvoir bi aussi yooyu yëpp da ci am ah kenn ku nekk ñoom seen intérêt la ñuy kaas moom la ñuy xool ñun nag bi nga xam moo ñor ñu parlementaire PDS moom dafa mel ni dégluwu leen moom àndul ak yéen moom opposition parlementaire non kooku maanaam xam nga xam nga waaw maa ngi koy nuyu parce que Serigne Cheikh moom mi ngi liggéey liggéey bi mu war liggéey liggéey bi muy liggéey en tant que président groupe nag bu fekkee dañ ko jox ay ndigal ak ay sart yoo xam ne foofu lay mën a teg tànkam ndax njiit boo ko xasee ba nekk la ñu la yow yaay président groupe bi ñi nga xam ñoom ñoo tànn pour nga jiitu groupe bi mooy ñi nga xam ñoo leader yi ci seen kilifa seen kilifa ngay mën a dox sa sa sa sa Pape Diop. Pape Diop mi ngi fi Pape Diop mi ngi fi mi ngi si jàmm moom non non Pape Diop mi ngi ñëw xam nga assemblée nationale ku ne xam na ne bi nga xamante ne wote bés bi jeex na ba léegi nii.

ñoom yabaluñu la ca. waaw xam nga loolu yëpp ay wax yàq la rek ndax man maa ngi fàttaliku ministre de l'intérieur si boppam wax naa wax naa man plaignard mu ne ma fan yi sa parti dana la attaqué xam nga ñoom dañuy yebal ay nit yoo xam dañuy bokk sa parti ñu attaqué la ne dañuy ñëw pour jëm la yàq xam nga sama sonk li ñu ko def nii man miy wax ak yow bi mu voyage Istanbul yebal nañ jigéen mu topp ma ko Istanbul lii maa la ko wax di xool fay dugg du xool fi may dugg ak pour maanaam bi nga xam maa ngi quitté la ma doog woo téléphone mu ne maa ngi ni yëpp moo di loo xamante ni ñoom pare nañ pour lépp képp koo xam jàpp na ni yow mën nga leen a yàqal wala mën nañ seen projet bi 2024 pare nga maanaam pour lu nekk danañ jéem a xool nu la sacrifié. ban projet 2024. mais ñoom dañoo projet bi yëpp pour troisième mandat. am na ñoo xam ne si wetu Macky Sall ñoo xamante ni. xam na ni bu fi Macky Sall jógee dañuy dugg si kaso bi ndax li luubal moo bari. Hmm. ñooñu il faut que ñu def ay lubi ay kii te aussi maa ngi laaj Macky Sall est-ce gis Adji Sarr Adji Sarr mi dinaa laaj Macky Sall est-ce que mas na ko gis wala mosu ko gis waaw mais loolu laaj la tontu bi moom na ma ko wax wala wax ko askan wi ñaareel bi maa ngi dégg aussi tamit benn waaye Maodo Malick nee na xamul Adji Sarr maa ngi koy laaj aussi tamit est-ce que xam na ko wala xamu ko xam nga dafa yoo xamante ni pour Sénégal yi xam barki dem bi mu mujjee am information Adji Sarr mi ngi woon Somone ci benn kër avocat mhm. fa la nekkoon fa lañ ko yóbbu woon foofu la nekk fa lañ ko yóbbu woon barki démb du may mujj am information xam nga man ku ne xam na ni information moom dama ko jëlee ci suuf di ko jëlee ci kaw lu ne laay xam. kan moo ko yóbbu Somone. Euh, waaw en tout cas loolu xam naa ne mi ngi woon Somone. Hmm. ci benn kër avocat loolu xamal naa ko. Euh, mais gis naa ni aussi tamit euh, li am situation bi nii fa mu jëm réew mi baaxul moo tax ma doon lancé appel pour kilifa diine yi. Hmm. dugal seen loxo maa ngi rafetlu comme ñi nga xamante ne jot na ko dem muy jàngu bi ak. maam kilifa diine yi lan lañ mën a def fi a mooy hmm. xam nga réew bu tollee fenn fii dafay am maanaam ay nit yoo bu ñu dëkk si diine mooy lii amut mhm. ndax diine dafa am lu ñu sant mhm. mooy boo gisee maanaam lii am dafa am ñeenti nit ñoo xam ñoo war a firnee ni lii pour mu doog am ñun foofu la ñu sukkandiku diine pour xam ne li amul léegi comme amul nag ñun bi nga xamante ni dañoo taxal ay kilifa diine dañuy mën a wax ni kat lii nga xam moom la ñuy diina sant lislaam sant na ko ni ñeent ñu bokkul ñoo ko gisandoo gis na ni loolu amul kon mun ñoo gëm ni am na kon léegi nag li amul kon li def mooy nan woote jàmm ak dal ci réew mi ndax loolu mooy seen intérêt ñu jeexalee vaccin bi gaaw waaw léegi aussi tamit ñàkk euh, moom du ko def lu tax du ko def mooy Macky Sall moo jëlee ay ñàkkam indi ko ci réew mi seen président ñàkk assemblée non euh, xam nga ñàkk ndox la rek ndax euh, man jàpp naa ni ñàkk yi du ñàkk yu wér ndax man Macky sàll ba man la ma doon gëm mooy bi ñàkk yi amee mu jëlee ko ba mu ñëw dafa waroon taxaw njëkk ñàkku hmm. ba pare ñàkk bi ñu wane ko hmm. mais bu fekkee ñàkk bu jóge siin la nga xamante ne Afrique dafa daf ko delloo woon ndax amul efficacité hmm. ñu jox ko Sénégal te xamul ba xam dañu ko jënd wala ñu ko loolu sax moo tax muy profité tey ji déposé naa question écrite jëlee ko Abdoulaye Diouf ndax ku ne xam na ni moom dafa defoon si Twitter wane dañu ko may fi ñu toll may wax ak yow neen dañ ko jënd 2 milliards 2. Mhm. man gis naa benn journal bu nekk Amérique boo xamante ni wax na ne Sénégal dañ ko may. léegi ko pour que man ma gën a am lu leer en mhm. tant que député bind naa assemblée nationale mhm.

dégg naa sax fan yi ñu ngi doon wax dañuy dem Touba pour jéem a xool nan la ñuy wax ak sëñ bi naa mais maa ngi laas appel mm-hmm. mooy ñàkk yi man ñàkkuwuma tey ñàkkuwuma ëllëg te maa ngi laas bu kenn ñàkku ah honorable lay gërëm maa ngi lay sa gërëm di la sant gërëm la Pape Djibril Binta dem publicité dellusiwaat ci plateau bi